ak jullit ak taalibe muy bisu alquran muy bis boo xam ne bis gën a ko rëy nun ndax alquran mooy sunu ndono mooy sunu teraanga it nag lu nu am lu nekk ci alquran lañ ko amee kon ku nu ko fonkale rek donte sa bopp nga koy def dana rëy nun lool nu sawar looy defam ci jottali kàddu yi nga xam ne moom ngeen ñuy laaj muy lan mooy cosaanul daara ji ak fi nga xam ne foofa la jaar ba agsi muy daara joo xam ne daara yi cosaan la ndax li tax mu nekk daara cosaan nun ñii di waxtaan ak yéen te nekk jëwriñ ji sunu maam sëriñ Mbaye Diagne mooy ki ko sosoon ci 1934 kon kenn ku ne xam ne loolu yàgg na waaye mu sosoon ko ci pëstéef ak itte doon fi jàngal alxuraan njaboot gi di leen fi tërbiya ba nun ñii di wax ak yéen sunu wayjur ak ñu ko mag sax moom ci daara jooju lañ génne loola di dox ba ay génération yu bare bari génn fi ñoo xam ne sëñ bi defar na leen ci jikko waaye jàngal leen tam ci diine ba ñu tasaaroo ci àdduna bi ñu ci bari doon ay royukaay loola manees na ci sukkandiku rek ci sunu kilif yi ñu fekk ci dëkk bi ñoom ñëpp moo leen yar ca loxo mu tedd ba ci ci daara ji lañ génne booba daara ji ma nga woon ca kër gu mag ga ca pénc ma ñuy dox ci loolu ba moom mu jóge fi 1987 bi mu fiy jógee bàyyee daara ji suma way jur muy Serigne Amar mi nga xam ne moo fa nekk tey mu wéyee la liggéey boobu nga xam ne waajuram doon na ko wéyale ci jàngale gi ak tërbiye ga ba nun ñii yàlla dogal ñu feeñ ci biir jamono jooju 1987 bi sëñ bi làqu fekkoon na booba man maa ngi woon ca daara ja doon jàng mu joxoon ma sama maam sëñ Mut Jaañ mi yoroon daara kamil ji ci Touba kon wanoon na ne wane woon na ne moom la ko waajuram bàyyiloon mi ngi ko doon jëmbat ndax li mu ko bàyyiloon téye na ko waaye li am itam fàgguloo jënd leen waajalal leen loo xam ne ëllëg bu ñëwatee loola dana mën a gën a jàllale liggéey boobu ndax xamoon na ne ëllëg moom moom itam bu demee ba mission jeex ak njabootam ñoo fi nekk kon war na leen a waajal ci loola loo taxoon mu génn woon ñun ñëpp ñu demoon sàkko ji xam-xam ñi ngi dellusiwaat fii 1996 soo ko xoolee ak bi wëy doon làqu day xaw jege fukki at waaw 1996 lañu dikkaat booba ba tey daara ñu ngi biir kër gi fa mu nekkoon bi ñu ñëwee mu jox ñu ndigal ñu taxawu daara ji wan ñu ne wan wan ñu ne lool dong mooy ak bëggam ci nun du leneen booba jamono jafe woon na tukki wuti alal xewoon na waaye moom ak njabootam wutul woon ci ñoom alal li muy jànkoonte ak jafe jamono te amoon ak njaboot mën leen wutul ëddoo def ko dafa ñu ne ñoom lii ko bàyyam bàyyee loolu mooy li mu bëgg ñu itam nag yàlla dimbaluñu ba amuñu ak bëgg du ak bëggam ndax lam ñu nàmpatal xamal ñu ko loolu dong lay xam sunu maam yi ñu yoroon muy suñu mujjaan bi mu ñu mu digal ñu lool neen su ngeen demee seen daara imam jooju la bëgg ngeen dundal ko ñu itam ñu am yéene jëfe ndigal loolee bi ñu dikkee 1996 la daal di taxawu laxasaayu euh, téye daara gi di jangalam ak xam mi di yoré jangalam xam-xam mi boy ko liggéey tool yi ma fekkol ak sama rak yi nga xam ne ma leen yor di leen jangal as tuuti ñu daal dox daara ji yok yok nga xamne mbolo mi xatutu xajutuñ ci kër bu mag ci la sëñ bi jógee ànd ak taalibe sëñ bay jaañ yi ñu lëkkaloo ñu jël barab bi boobu barab bi ñeent pàkk la yu booloo ab miir bu gàtt moo fi nekkoon ak ñaari bâtiment yoo xam ne ñoo jàkkaarloo mooy bâtiment bi ak bële ñu jënd ko pour ngir indi fi daara ji ma ànd ak donge ñëw ñu nekk fi di fi jàngale alxuraan di fi yar xale yi booba fii mbaarum sàkket moo fi nekkoon man saa daan jàngalee yalla dimbali ñu ci barkeb mag ña ak seen yeen ja seen pos ak ñu nangu nang giñ nangu ndigal li seen ñaan fekk ñu ja dir bu gàtt xale yu bare bare mokal fi alquran diko bind ci ay téré euh bi lolu amé njàng li ma gëna yaatu fenn fune ay nit yi fi jóge du andi seen dom ndax gis xale yi njàng mi nim gaawé ak mokkal gi nim rafété rawaté diko bind tu bind tudd ko ak yar bi sëñ bi duñ ci won ay ndimbal ay ndimbal yu kawé kawé bi ma demee ba njàngalem xam-xam mi xaw a dis ci man ak njàngalem alxuraan ak yu bari bari ma yenoon ko ci bëgg naa xale yi am xam-xam bi ma bëgg ci laa daal di jële benn borom xam-xam bu ñuy wax alhaaji Mouhamadou Fadul Lo mbokkoon ci jëwriñ ñi nga kon njàngalem xam-xam sëriñ Saliou ma xamoon ak taalib bi mu koy wuti kër sëriñ Tuubaa fa nga ko mën a amee moo tax ma jëloon indi ko fi sëriñ Saliou joxoon ma ko euh, ci kàddoom xamal ko ne seen daara jooju de xamuwuma ko ak sama daara ji mu ñëw fii ma yoral ko ab sarsam lépp la ca war ñaari at moo ma defal ci suñu affaire ñoom ñi la ma bëggoon ci xam-xam la ca desoon ñu àggaleel ma ko man ma gën a ma taxawaat alxuraan ba ñu wayaf seen njàng xam-xam noppi ñu doog a jël liggéey alxuraan bi ba ma itam ma nekkaat ci yeneen alaaxa yoo xam ne moo gën mooy mooy gën ma taxawal liggéey loolu mooy jaar jaar daal bi ne ba nga xam ne agsi na foofu nag xale yi nga xam ne ñoo doon génne fii ci daara ji doon ay tuut tànk mokkal alxuraan génn saxal ci àdduna ñu am xalaat ne ñun kat gis nan ne ba ñuy jàng ci daara ji am na ay jafe-jafe yu ñu doon jànkonteel wax naa leen ko naari sàkkat moo fi nekkoon ak yeneen ak yeneen ndox booba ndox mi fii ak sëñ foon danaan rooti eh, di taxani matt mu nuy jànge courant bi amagu foon njëlbeen amoon ay jafe nekkoon ñoom ñu ñoom ñu fi nekkoon dund ko ñoo ko xam waaye liñ fi jógee jëlee daara jariñ jariñ leen ko xam nañ ko ñu ne kon ñun ñoo war a jóg taxaw nag taxawaat daara ji ba mu tàqali ko ak jafe yooyu loolu moo waral eh, ñu sos seenum ndaje daayira muy daayira xale yi bi ñu ko defee def ko mel men at mu am solo lool jëwriñ daar yi mag yi ñu naan ñoo génération yi njëkkoon a génn ñoom itam gis ko daal koy rafetlu daal ñu ànd ci ak ñoom ba fu doomu njaañ nekk ci àdduna te nga jaaroon daar yi sëñ Mbay tey sa loxo dugg na ci daar gi yaag sa sa bokk taalibe ya nga nekkal ak say ak say soppe waaye mu dem ba julliti yàlla yëpp itam dugal ci seen loxo loolu tax na daara gi tàmbale am benn tawféex boo xam ne ñu ngi ci am fekkoon na lu jiitu loolu man bàyyi woon naa ko xel ndax 2006 la defaroon plan bi nga xam ne moom laa bëgg daara ji mel noonu ndax maa ngi fi nekkoon di jàng di jàngale doon jànkonteeg ay jafe-jafe waaye xamoon naa ne jamono war naa romb fii waaye nit ku ne fa nga toll ngay doxee baa nga fa nga jëm ma ne ko naa waajal man ëllëg su ma demee ba suñu borom defal ma tawféex ma bëgg ni ma bëgg sama sama daara mel ko mooy boo xam ne te dëppoo ak jamono xaalis dafay nekk nekk ci condition yu baax ma defaru plan boobu 2006 da xanaa 2006 ak léegi boo xoolee euh, war naa mat bi ñu demee ba mbooloo mi ñëw ñëpp àndandoo jàpp ci ci laa doon génn plan jox leen ko ma ne gannaaw nag léegi mbir mi mbirum yàlla la mbirum lislaam la njabootu lislaam gépp ñëw nañ kenn ku ne yaa ngi xool noo ci dugal sa loxo kon nag nañ génn li ñu waxoon ne moom lañ bëgg ñu génn plan booba mbaar mii ngeen gis mu taxaw ci plan booba la nekk mbaar mi rek moo ci génnagul war na am ñetti appartement yoo xam ne day jàkkaarloo ak mbaar mi xale yi yooyu boo xoolee R plus 1 lay doon mi ngi ci plan bi eh, benn bu ne dana war a mën a jël téeméeri nit war na am ci kaw benn bibliothèque ci mbaar mi ak eh, jàngukaayu xam-xam war na am benn jàkka itam ci penkoom boo xam ne jàkka ju yaatu lay doon ñi nga xam ne njaboot ji fi nekk ni leen bëgg a tërbiyaay ci lislaam su boobaa dana mën a boole njàng mi ak jaamu yàlla gi loolu mooy plan bi nga xam ne moom laa defoon moom lañ tàmbalee réaliser ba jot a taxawal taxawalagoon mbaar moom waaye lépp nag ci tawféex yi dong yi nga xam ne ñoo wëbatiku dajaloo taxawal bis bi waaye ak jullit yàlla yi nga xam ne ñoo leen ci fekke si ndax defe naa bu doon ñaar dërëm dongay dong mbaar mi dana yéex a taxaw waaye nag yàlla am na ñoo xam ne itam gis fu mën a defal yàlla képp moo la ñor moo tax bi ñu gisee itam ña ngi koy def lañ man ba tax ñu agsi fii loolu nag moo waral bis bu tey bii mu mel ne kon ameel nañ yàlla njukkal waaye amee nañ jullit yi njukkal ci bëgg gën bëgg yàlla ba fu ñu toolu bi yàlla attan ci àddu seen loxo loolee yàlla na leen ci yàlla gën a dimbali waaye ñu ngi naan itam képp ku ko ci def yàlla na la ko suñu gis ko ma wax ne wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu waxaat na wa man yuqrid allaha qardan hasanan fa képp koo xam ne lebal nga yàlla bor bu rafet yàlla su la koy fay doo la fay yem ca waaye daf koy ful kon ful googu ñun ñëpp yàlla nañ taseeg moom ñoo ngi sant bu baax di soññaat suñu bopp waaye di leen soññaat yéen ñii nga xam ne yéenay taxaw te jàllale message yi kàddu yàlla yi ba mën a àgg julliti yàlla yi te di ko def nag akuk jàppandaw ndax gis na ni ngeen taxawee ci suñu bis bi te xam na ne bis yëpp noonu ngeen cee taxawee lii nuy wax itam fii ñu ko waxee nii fi lay yem xam àggat yéen yéen ko fay àggale ka xëy dégg ba di ci mën def dara yéen seen jàppandal lay doon kon yéen itam yàlla na yàlla dimbali ñu ngi jégalu baax xëy na jotaay bi moo waaye buñ sañoon kàddu yi dana gën a leer loo ci xam ne des na itam su ngeen ci amee ay laaj rek dana ci mën a tontu waaleykum salaam wa rahmatulah. fondateur waaw ki sos daara yi mi ngi tudd Serigne Mbaye Diagne. sëriñ Mbay Jaañ mooy sama maam moom moo sos daara ji doonoon seex ci seexi sëriñ Tuubaa yi yoo xam ne liggéeyal na njabootu sëriñ Tuubaa gi ba ñëpp ràññee leen moo ko sos daara ji nag fi mu toll nii ni muy doxee mooy nun li ma leen waxoon ci njëlbeen gi rek bi may tàmbali mm, di jiite daara ji man ma yor masuuliye bi booba fekkoon na daara internat door a xew dafa xam ne internat bu ngeen gëstu Sénégal 2015 2014 15 nga Touba gannaaw bi am ñu koy topp muy ñëw fi booba lay door a xew tukki di xew ba kilifa yi waxoon nañ man ne man léegi gannaaw yow sa morom yi ñu ngi wuti xaalis yow tukki woo te jamono nga xoo ko def internat di laaj dara xataa sax bu dul fay gu seer ndax nga mën a am looy fay say soxla man leen de man fasuma ko yéen ndax mbir mu ne da ngay xam la la ca boole man alxuraan jëggaane moo ko dama ko doon sëñ Baye jaañ moo sos daara jii jur sëñ Amar Diagne Mut Diagne moo ma yar yoroon daara kam jur soxna Diop Diagne sëñ Mut Diagne digal ma sëñ Baye Diagne sëñ Amar Diagne digal ma ne naa taxaw daara sëñ Baye Diagne defe naa kon leen nag sama ñaari maam yi nga xam ne kenn ku ne da ngaa yoroon alxuraan daan ko jàngale te dawoo ci benn dërëm te yàlla dina ci fekk di kon su ma nee bay toog di jàngale barke boobu ñu amoon man moom lay wut su fekkee naa bëgg xaalis nag ma futti ko dem wuti ko naka sama morom tuuti loolu laa ma ko tàmbali ma bi moo taxoon daara ji mënuma ko woon def internat ma leen ñaare bi internat dafa am barab fii nii village la ëpp ci xale yi may jàngal seen wajur seen añ sax mënut a mat ñoo ne boo leen laaj ci seen doom ñeenti téeméer te xamuñ xamuñ xàqi jàng ba mën nañu ko jaral mën na mën nañu fa sax bàyyi loo xale bi am jàngal te su booba doo lor waajur wa xale bi ngay lor man ne ko nañ bàyyi ñu jihaat ci loolu moo daara ji nekkul internat maanaam nekkul daara yuy jàngoo jàngaloo di fay waajur weer wala ñu lay laaj at mbaa àllarba waajur wi nag mooy xool lu ko yàlla man loo ci wërsëgam ak xam ne ki la loo am lu ci war nga def loolu ñun teguñu ki nga xam ne sax waajur yi nga xam ne amuñu fi sax doom ñoom dañ koy def kon nañ jàpp tool bi la waaye du internat ci gàttal bi nga mën a wax sëñ bi daal moom moo yor daara mooy joxe dundub donga yi fi nekk donga yi fi nekk bari na bari goo xam ne ñëpp mënuñu leen a dundal waaw mi ngi nekk ci ay deux cent soixante seize bi ñu ko mujjee lijjanti waaw deux cent soixante su ko defee waaye ñëpp duñ dundee ci daara ji dañuy xool première catégorie ñi nga xam ne ñooy euh, jàngalekat yi ak deuxième catégorie ñi nga xam ne ñoom ñoo toll ci waaj a noppi ak troisième catégorie ñi nga xam ne kon ñooñu ñoom euh, mën nañoo féer ci daara ji di ko lekk ñeneen des nag ci biir dëkk bi wax dëgg yi ñu wër ak yëpp yeneen yëpp kenn ku ne am na koo xam ne ab donga doon fa ñëw nga di ko yor nga xam ne bu añ mu ñu añ si fa mu ñëw reer ba nga xam ne am na ci yenn xale yi nag yoo xam ne ñoom mm, danañ dem di yalwaani waaye bëriwut waaye yalwaan wi itam ñoom dañuy dem ba yalwaan fu mu gën a xam gannaaw dëkk bi noonu la bindoo te boo génnee di yalwaan la ngay am day gën a doon du yalwaan du yalwaan métti ba am ñoo sax dañu am kër yu ñu war a ndax lan leen sax nañu lekk waaye li ñu am solo mooy rek programme daal njàngale mi eh, ñu respecté ba mu bañ a jël benn waxtu ak kii añee ji ci gëneen kër kii añee ci daara jeeg kii yalwaan am na heure boo xam bu ci tamoon da ñëw soo jàng suñu jàngee ba denc nga dem wuti loo mos ñëwaat bu guddee nga defaat noonu loolu bu fekkee am na fa ci lu fi nekk noonu lay demee waaw ah, waaye nag bëriwu fi bëriwu fi wax dëgg yàlla ci ñi yàlla daal moom bëriwul. ndax euh, am na ay euh, waaw loolu nag bokk na ci li ñuy xaar ndax wax naa la wax naa la ne euh, lii nii li ñu am bu fekkee am na partenaire mën naa xam ne mooy ressortissant daara ji ak mm, waajur élèves yi ak mbokk yi nga xam ne dañ koy dégg di ci ñëw lool lañ amagum ci loo xam ne maanaam chaque année dana dugg si. ñu mën koo def ci daara ji waaye benn partenariat boo xam ne amagul na fu muy féete daara ji bañ xam ko du ci état du ci feneen état it dana ci jàpp ni ñu jàpp mooy bis bu amee dana leen ci woo su ñëwee dana yëkkati benn enveloppe jox ko ñu ngi koy yëpp loolu ñu ngi koy gis baax di gisante waaye nag taxawaay boo xam ne dañ ko xamagoon euh, dëkkuwaay yoo xam ne defal nañ ko daara ji wala dund boo xam ne wala nang loo xam ne lu fës la moom amaguñ ko ci partenariat amaguñ ko ci état ñoo ngi koy wut nag di ko xaar ci képp koo xam ne am nga ci pexe wala mën nañu cee jàppale ndax soxla nañ ndax kenn ku ne xam ne plan bi ñu def nii nga xam ne te la koy war na loolu xam nañ ne euh, du ñun dong suñu doole lañ ci yaakaar te plan bi moo gën tuuti ndax plan bi àggoon entretenir ak ni bëgg a doon condition yi ñu bëgg a doon nekk ci biir loolu moo gën a jafe plan yaakaar naa waaye xam nañ ne la ñuy ci plan ba àggee danañu mën a téye ba lañ si bëgg ñu ko waaye xam ne li ñu bëgg euh, daara ji nekk daara joo xam ne dafay dëppoo ak jamono waaye xale ya fay nekk itam nekk condition yoo xam ne doomu président sax su bëggoon jàng alxuraan bu ñëwee dana ko mën a nekk ndax condition yi daf koy laaj loolu mooy suñu yéene te alxuraan doo nga tax ak diine li am dana koy def ba mu jeex tàkk lu ñu keneen jox it dana ko def ci gàttal mooy jàppal ne kon daara ji amagul benn partenariat bu fixe boo xam ne bu ñu xam la